mbokki jullit yépp mbokki taalibi yépp mboolem waa réew mi ak ñi nekk bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi yëkkati kàddu yi ci ndigalul sëriñ bi ak teewaayam muy nuyu ñépp di sant ñépp di fàttali waa réew mi ak waa bitim réew lii nu dëgmal nanu maase xam ne lu nu mën a am jàmm moo ko gën ci nun ku amul jàmm doo tala jaamu yàlla fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaana ku amul jàmm doo tala lijjanti sa àdduna moo waral sunu boroom wax ne yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafatan sunu boroom yërëm jàmm ñi rekk a tax mu yónni seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin adduna ji jàmm fi gën barzaq jàmm fa gën alaxira jàmm fa gën wa salaamun alayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubaasu xayya jàmm nag li koy maye mooy fas ko ci sab xol di ko wax di ko jëf te tey ànd ak nit ñi bëgg jàmm inwi waqul wafal wa laazim taslami rumil ola mukarramam bi kalimi bokk na ci lii maye jàmm di moytu ak tooñ tey jéggale yàlla wax na ci xadis qudsi yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tadaalamu waxaat na ne fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala ku baax ki daana wax ne dee leen moytu ak tooñ tey moytoo fayyu ndax kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ daana wax ne ba ma mosee muñu tooñ laa noppalu ndax sunu borom damay fayul fay ma bokk yi ku leen woo ci jàmm wuyu leen ko wa in janaxoo li salmi fajnax laha wa tawakkal ala la ku leen woo ci safaan yéen sax leen ci jàmm sax wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama nit ku ne sàmmule ko yettam diineem bu ko yàq alalam bu ko yàq ab deram bu ko yàq kullul muslimi ala al muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irdu tànn nag yàllaa ko jagoo te yàlla noppi na jaam ñi ñoom euh, sàkku ak sabablu rekk mooy seen wàll la yàlla def ba noppi nag jërul ñaawoo sëriñ bi nag ñépp la fi nekkal ku fi dikk dékk ko say loxo mu ñaanal la dénk la digal la ku jàpp ne bokkoo ci ak njabootam umpule nga fa mu ne ak fa mu teg tànkam waajtaayu bis bii nu dëgmal euh, tax na coow li bari ci loolu mi ngi digal ñëpp rawatina waa Touba nanu gën a sàmmonte ak wormay dëkk bi yaraat sunuy kàddu fóotaat sunuy jikko nammaat sunuy pas-pas sunu diggante ak sëriñ bi soppante yéenante jàmm taxaababu fillaahi yaa ixwaani bila taxaasudin wala udwaani inna taxaabuba huwa al imaanu li ahlihi sururu wal man xabba lil axi alladi yuxibu li nafsihi radiya anhu rabbu kon nag waajtaayu bis bi ak jëmmi bis ba ak bis ya ca topp nanu sax ci suuxat jàmm di ko wax di ko jëf rawatina fii fii Tuubaa nanu gën a wormaal sëriñ bi ci dëkkam bi nanu rus sëriñ bi def ko ni ko yàlla def sax ci li mu bëgg wa salaamun aleykum yasurrukum wa yanfaukum wala yadurrukum abada wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen di sant jant goo xam ne eh, fenn ndax eh, seen bi amul benn jataay bu ci defar rek la lépp ci defar rek la loolu nag moom la ñu suñu suñu diine sant moom la ñu sëñ bi sant loolu amuñu leneen lu war a nekk kon nag ndokk bi nga xamee ne alhamdulilah rabbil alamin bi yàlla dogalee jataay bii te mu doon loo xam ne pour sa dem ci sama xel waaye nag nekk ci lu sëriñ bi gërëm mos sa jóg sama xel kon nag bu yàlla dogalee lii ma fekk fii ci ci sëriñ fi bi fekk fi euh, bokk yu demee ni ki yéen di sama bokk di samay bokk di sama bokki taalo bi euh, ngeen euh, mel ni ngeen mel maanaam xam ni ngeen war a xam lépp ci wàllu xam-xam borom xam-xam bu jëfe xam-xam kon mel na ne yéen jotaay bi ak seen jéego yi ngeen dox ñu ngi fi ak seen jotaay bi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk loolu alhamdulilah bi ndokk bi nga xam ne eh, sëriñ bi moom faggu na lépp moo tax faggu faggu ko kon lii seen jotaay bi lu jotaayu dëgg jotaayu defar jotaayu liggéey sëriñ Tuubaa kon lii ci pàggute fi sëriñ bi maa ngi sant bu baax maa ngi sant suñu borom ñu boole sëriñ bi sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ëllëg sant di leen gërëm yéen ci seen taxawaay